asalaamaaleykum mbokk yi nuyu naa leen ñu ngi nuyoo fii ci kër Rahma seen waañ seen feem moo ñëwaat di leen nuyu yéen ñëpp di leen di ñaanal jàmm di ko ñaanal suñ bopp di ko ñaanal képp ko safoo seen waañ seeni feem bu ngeen gisee lii nag ni muy wëndeeloo ngeen xam ne tey jii nii bu la neexee nga ne ngurbaan bu la neexee nga ne laaxu basaab bu la neexee nga ne laaxu caaxaan plan national Sénégal a ngi nii laaxu caaxaan laaxu bisaab macha allah lu am solo lu neex lañ leen andil gis ngeen suñ dugg li ci dem yëpp macha allah ñu ngi ci ànd ak Rahma Spices by seen waañ gis ngeen suñ sanqal gerte noflaay netetu tamaate loxoti bisaab bu wow géej gi géej gi bër ak yooyu noonu yëpp am nañ ko am nañ laaj si bi nag yooyu noonu yi wow yu man la neex de maa ko ci def tamaate doom soble kaani salaat daqaar macha allah loolu lañ am ci suñ ngurbaan bi nga xam ne andil nañ leen ko tey jii nag bu ngeen fàtte ne Rahma Spices la bàyyi seen waañ moom ngeen ànd ak ci waañ bi rek macha allah lépp lu ngeen ci bëgg rek am nañ ko lépp luy safal cin rek macha allah bu ngeen ooyee ci numéro yi rek di ngeen ko am bu ngeen gisee lii ma def nag dama dugaloon yàpp bi pour mu gaaw a ñor dama kaa muusaloon bu la neexee nag doo ko muusal mun ngaa defarandoo yëpp ñulug rek defandoo yëpp waaye man lii man la neex affaire bi gaaw a ñor ma muusalaale woon yàpp bi loolu tamaate loqati bi la ma def ko si amul diwlin li ngeen gis nii du diwlin yàpp bi graisse bi si nekk moo wàcc moo tax mu mel noonu waaye du diwlin pour ngeen xamaale ko ndax pala bi warta am diwlin macha allah gis ngeen ko def nañ ci suñ tamaate bi yëngal ko indi suñ paprika bi rek sànni si tuuti raxma espace bi macha allah nga xam ne paprika bi moom xonq bu rafet day dooleel sa xonq daal di nga am xonq bu rafet macha allah ba pare da koy jox guu bu neex paprika bi macha allah benn lafi fi moom tamit léegi nag gis ngeen suñ xonq ni mel ñu ñëw ñulug rek noonu baax na buñ ñulugee rek ñëw def si yi nga xam ne nii moom lañ si def indil leen suñ ngurbaan macha allah nga xam ne dafay faj ma ne ko dama xam ne dafay faj daal ku tooy rek na na ci supp wala ku sibbiru sa gémmiñ safut dara rek yow dafa jàppal sa ngurbaan rek boo ci lekkee ba ñaq rek macha allah di nga yëg tane ci sa yaram incha allah léegi nag gis ngeen ko gerte noflaay bi lañ def sànqal bi sebeti nañ ko bam set mu ne ko sànqal bi sebeti nañ ko bam set mi ngi noonu ñu def suñ gerte noflaay bi jaxase ko si rek ñëw dëbbu rënd yi nga xam ne nii moo siy dem netetu baa ngi noonu keccax beeg géej bi moo nekk noonu ñu ciy def léegi nag ñu ñëw wal ko rek nag macha allah ñëw indi ko ci suñ cin bi nga xam ne moom lañ teg mu ngay baxaale gis ngeen ko wal nañ ba pare ñu ñëw def suñ laaj kaani salaad yeeg yooyu ñun la neex nag ndax jamono maam ñoom bañ ko daan togg daawuñ def kaani salaad seen neti toog keccax rek la ñuy def togg dafa bari façon ku si nekk ak na nga koy defee liñ ciy def ñun la neex comme neexut boo koy toggaat nga mën nga ko see ñàkk def daal waaye am na ci solo kan tamaate doom bi moo ngi noonu ñum suñuy maam buñ ko daan togg tamaate doom lañ daan def jëmb ko ci bam sax macha allah ñun nag ñoo ci def suñ yooyu noonu ma leen di wax rek yii ñun la neex ñu def ko keccax kii bu wow bi la daal si bu wow bi la ñoo ko si bëgg macha allah am na ci solo ak tuufo bi neex na ci trop macha allah ñu ñëw def suñ nokkas boobu macha allah gis ngeen ko noonu saf na saabu nokkas bu neex lañ leen indi noonu ñu ñëw jaxase ko rek jaxasoo macha allah gis ngeen ko noonu dangay jaxase rek togg bu ne yomb daal bu la neexoon yépp sax mun nga koo sottendoo ci biir cin bi rek soo a taal cin bi sax nag waaye man maa bëgg yàpp bi ñor nga xam ne nii duma duma si yàgg daal togg bu gaaw laa ko bëgg a def looloo taxoon ma muusalaale yàpp bi gañewaale temps bi tuuti gis ngeen ko noonu danga koy jaxase ba mu jaxasoo rek nga ub bàyyi noonu ma ne ko nga ubal rek bàyyi noonu tuuti rek nga gis mu ñor li eh, wax sax léegi am na ci sase yi nday mi ngi ko def ma ne ko nday def na ko ci sase yi macha allah def ko liggéey bu seetlu moom tamit xam naa dinañ leen indil nguru baalam bi ngeen xool ko loolu xorom lañ def rek pour mu baar ma ne ko dinañ leen indil laaxu nguru baan boo xam ne nii nday moo ko defar sénégalais bu ko liggéey macha allah liggéey ko ci liggéey bu sell liggéey na mbaxali gerte yi yooyu yëpp daal xam naa dinañ leen indil vidéo am ngeen gis ko macha allah nga xam ne nii dangeen ko support oote ci numéro yi moom tamit macha allah di xam ne mi ngi liggéey liggéey bu am solo. loolu daqaar bi la ñun ñoo koy def pour foroxalee ko defoon nañ suñ basaab def tuuti ndox limon bi rek pour mu forox macha allah am na am na kii daal xam naa ne am na gu xetul ngurbaan baa ngeen ubbale macha allah léegi nii mu mel gis ngeen ko noonu oyof na. da ngay dëpp rek nag wàññi sa gaz bi pour mu baar def say kaani xeeñ kaani xeeñ ko bëgg rek ko ku ko bëggut bëgg si def ñun moom dañoo bëgg kaani xeeñ surtout góoram gis ngeen ko noonu na ma ko xaree ci kaw pour mu nga xam ne odeur bi day ñëw ci lekk bi du ko safal danga koy teg rek ci kaw boo xamee ne nii mu ngi kii rek nga teggi ko dangay am odeur bu neex macha allah gis ngeen diwoom génn na yëpp macha allah affaire bi jaar na yoon. yekkal naa leen ko yéen ñëpp nag képp ku safoo seen waañ seeni feem rek ñu ngi leen di may suñ laaxu ngurbaan bii nii di wax ne ñu ngi seppi kaane yi rek ñëw yekkal yi nga xam ne nii indil nañ leen ko daanaka pare na dangay ubb rek tuuti macha allah gis ngeen ko noonu ni muy baxee yéen a ngi gis baax bi am na solo léegi ñu ngi ñëw yekkal leen ngurbaan bii nga xam ne nii moom lañ leen indil pare woon na ñu ngi koy yekk nii macha allah di ko may soppe yi rek nag di leen di ñaanal jàmm rek di ko ñaanal suñ bopp di leen di wax kon nag ba beneen yoon ak yeneeni feem fii ci seen waañ seeni feem lii la leen andiloon di leen di wax fàttali rek EPS yi oote leen ci numéro yi support ñi ku nekk Sénégal na oote ci numéro Sénégal bi ku nekk Amérique foo nekk rek dinañ la léebira suñu EPS yi nga xam ne Rahma Espace yi la bàyyi seen waañ bu ngeen ootee da ngeen am araw yeeg mbaxali gerte yeeg nete tubeeg macha allah lépp ma nga foofu dox dajee la daal kon nag ba beneen yoon ak yeneeni feem fii ci seen waañ seeni feem